yéen ñi yittewoo bagage yu rafet te mucc ayib am ngeen ay tegtal 2HP Bazar boo yegsee fii ci 2HP Bazar lépp loo bëkk am na fii li ko dalee vaisselle art de table gadget et jetable électroménager cosmétique cuuraay bambinerie décoration jouets ba ci accessoire de mode et beauté maanaam daal njaboot gi kenn ku ci nekk ak sa rayon daw leen gaaw jël si seen wàll ci 2HP Bazar yow miy jaayaat wala yow miy def vente en ligne 2HP Bazar dina la gunge ci ay bagages ci njëg yu xéewale mbokk yi dëkkee Thiès ak li ko wër 2HP Bazar jege si na quartier Escale passage Ndama jàkkaarloo ak super campus mën ngeen leen jot ci 76 yéen ñi bëgg a def seen achat te nekk ndakaar nag daw leen gaaw ci 2HP Bazar bi nekk zone de captage immeuble EMG numéro bi 76 223 74 67. wala ngeen daggu ndànk ba Pikine cité Lobatt Fall immeuble Khelcom Bache téléphone 76 223 74 64 mën ngeen ñoo topp itam ci YouTube wala TikTok dëgg-dëgg 2HP Bazar daal du hasard. الله السميع العليم gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ngi yëkkati nuyoo bu gën a sell bu gën tedd man ak sama ñaari naataangoo yi ma àndal mooy le ministre ki nga xam ne moom lañu dénk cadre de vie ak secretaire d'État bi yore logement yëkkati kàddu jottali nuyoo nuyoo son excellence monsieur le président de la république jottali nuyoo membre gouvernement bi yépp ñi nga xam ne ñun ñoo leen fi toogal di sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu ñëw fii ay yooni yoon ren ñu ñëwaat fii ci anam bu bees ngir barkeelu ci li nga xam ne moom lañ dégmal mooy màggal bi di bés bu màgg ci réew mi di bés bu màgg ci àdduna bi man ak samay naataangoo dañoo décider fépp fu ñu war a dem yóbbu sunu asaka yéene ci wàllu jàppale ci liggéey yi dañoo fas yéene ànd ànd ñëw bokk ko ak yéen ci wàllu préparation bi comme ni ñu ko président de la république santé coordonnateur UCG wax na léegi sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu xalif général des Mourides di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak gudd fan mu yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi mu yàgg fi lool di ñaanal réew mi di ñaanal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ki nga xam ne nag moom mooy suma naataangoo le ministre bi nga xam ne moom lañu dénk cadre de vie ci yéeneem ci xam li li ñu wax li ñuy wax solidarité gouvernementale dafa dajale ay moyen yu bari UCG bi lim na ko léegi ñu boole ci sunu asak yéene ñu ñëw jébbale ko pour que liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def avant pendant et après màggal gi liggéey boobu mën a jaar yoon ñoo ngi sant yàlla bu baax maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi koy sant encore une fois di ko gërëm ci cër bi nga xam ne yëkkati na ko teg ko sama loxo alhamdulillah fépp fu ñu ànd dafay ne Abdou Karim jiitul mm. du ma fi yëkkati kàddu damay seedeel mbooloo mi nit ku baax la dama koy seedeel mbooloo mi dëgg nit ku mun a maye cër la maye cër nag du mm. dindi dara ak cër bi la yàlla jox mm. monsieur le ministre maa ngi lay gërëm bu baax ñu santaat yàlla waaye occasion ngi nii pour jëfal son excellence monsieur le président de la république ci liggéey yi muy def ci këru diini yi rawatina fii ci Touba. buñ ko naree lim duñ ci génn waaye yéene moo ëpp solo jëf dëgg te ñun ñëpp xam nañ ne président de la république yéeneem ci ñoo ngi lay ñaan di ñaan xalifa bi mhm. ngeen continuer di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla yàlla oyofal ko yenn bi nga xam ne moom la ko senegaal yenn mu àggali lépp ak sagoom ngeen ñaan li nga xam ne moom mooy mbas mi di balaa bi fi gane si yàlla daxal ñu ko génneel ñu ko ci réewu jullit ñépp génneel ñu ko ci réewu Sénégal génneel ñu ko ci àddina bi yépp am nañ ci yaakaar man nag du ma noppi di ko wax banqaas bi ma président la république dénk saa yu ma ñëwee fii ci Touba sama xel sama xol day set ku jaar ci ñaari allées yi gis liñ fa jëmbat ci ay cocotier Hmm. te Touba nekk dëkk boo xam ne ñu bari walla ñépp fi ñëw loolu buñ ko gisee sëñ bi dañ koy rafet lu xam naa ni liggéey bi nga xam ne moom lañu président de la république sant muy senegal nekk vert Sénégal gën a naat Sénégal gën a set yéen a ngi ci yéen a ngi ci guddi yéen a ngi ci bëccëg loolu nag témoignage boobu war nañ ko fi wax di ñaan également ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk sénégalais yi nettoyer baax na waaye ñàkk tilimal moo ko gën ñu góor góorlu bu baax ci jëmbatum garab ñu góor góorlu bu baax ci setal sunu dëkkuwaay sëñ bi loolu laa bëggoon a jottali ci tur bi nga xam ne wax naa ko sànq ñi ma àndal di yeesal sunu ziyaara bu baax di yeesal sunu ñaan mu jëm ci kilifa bi yàlla may ku wér moom ak njabootam yàlla may ku gudd fan mu yàgg fi lool bés bu màgg bi bi ñu dégmal muy màggal yàlla nañu yàlla may ñu teewee ko ñu teewee ko ci dal ñu teewee ko ci tal ñu teewee ko ci jàmm ñu dugg ci génn ci jàmm ak salaam comme ni ko sëriñ bi yéenee comme ni ko sëriñ bi di ñaanee guddi ak bëccëg képp ku fi seqi tànkam yàlla na ko yàlla fayal boppam sëñ bi loolu la amoon ci ay kàddu waaye maa ngi nuyu bu baax monsieur le maire di nuyu également monsieur le ministre ki nga xam ne mooy sama trône Abdoulaye ak cadre mhm. frontière amu fa loolu moo tax man ak samay naataangoo yi ñu ngi joxante loxo di liggéey guddi ak bëccëg réew mi yàlla mottalil ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax na ci mu Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer xar xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du luubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni makket yii xool it seen plan architectural yu ngi yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaarange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kennook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg.